fii laa ñëw toog ak moom mu wax ma li nga xamante ni moo di combat ëmba seen ak Sa Thiès nii lay demee nee ma boo yeggee ba arbitre bi di waajee siffle génnal jibi di stade bi woo ma ma wax la turu ki nga xamante ni mooy daan mu wax ko àdduna yëpp teg seen bët yàlla dogalee ko noonu yàggul dara Chérif nga yëkkati ay kàddu ci kilifa gu mag dina génn àdduna yàggul noonu ñu teg suñu bët gis ki nga xamante ne moo di suñu papa Gaston yàlla yóbbu ko noonu nga ñu waxee woon li nga xamante ni moo di gouvernement bu bees bi changement bi coppite loolu lépp ñu teg si li nga xamante ne moo di suñu bët tey nag dañoo dellu si waat ak moom ci dëkkam euh, seet si ko fas yéenee waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo fi am combat Balla Gaye Sa Thiès dinañ leen indil nouvelle askan bi xam ko seetaan ko mbokk yi di nuyu bu baax a baax a baax ci dalal di nga xamante ne dalal nañ ko ko moom Chérif Abdoul Sow saa su ne indi xam ak li nga xamante ne moo di njëriñ ci askanu Sénégal waaye tey nag daf ñoo may loo xamante ni yaakaar naa ne ñu koy am ci jëmmam ji bëriwul ñëw ci moom seet seeti ko fas yéenee waxtaan ak moom waaye mu yebal ñu ak taalibeem ànd ak sëtam wan ñu bërëb boo xamante ni lépp loo xamante ne jaaxal na doomu aadama wala loo xamante ne jóoni jóoni la bërëb bii muy wéetalee boromam fii lay ñëw tudd ko fi soxla soo soog saafara si daal di aajowu waaye nag tey dinañ waxtaan ak moom bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni askan wi saa su ne rek ñu ngi ñëw ci moom di ci am njëriñ lépp rek ci xam-xam bu wér bi nga xamante ne dañu koy fekk ci moom Chérif maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la bàyyi ak mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax bismillah bismillah fii mhm. dëkk bi mhm. yéen suma njaboot gen mhm. ba ni naa leen dalal ati lu leen fi indi ci tànk jàmm tan ngeen di dox woone xam-xam woone ay nit yu baax ndax mu a dimbali suba nit yi nga xam te ne soxla nañu fu ñu jooytoo seen soxla te xamuñu fu ñuy dem ngeen nekk sabab ñooñu ñu mun a jokkoog ñooñu sen soxla yi di fi fajoo loolu dama leen di koy wax bisimilah. yàlla moo yor fay yàlla na leen yàlla fay. Mhm. ci bu baax li macha allah ci kaddu yooyu am solo yooyu yaakaar naa ne ci kanam tuuti dinañ gën a yaatal ak ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel ci mbir ñi nga xamante ne rek lépp waxoon nañu ko ñu dem tekki suñuy bët waaye ci li nga xamante ne saa su rek du liggéeyal ak nit wala du jëflanteeg ak doomu aadama te xooloo ay mbiram <coughs> wala nga seetal ko wax ko biiram wax ko biiram <coughs> ci wàllum seet yan kàddu nga ci tënkaatal askan bi rek ndax saa ne nga partagé ak ñoom. nit balaa nga koy liggéeyal danga ko war a seetal ba xam lu nekk ci moom ñun lay seetal nit bu ma xoolee sa biddew dina xool ma xam bo fi nga taxaw kam ba kam yi nga sol dinaa kam sa aajo bi nga may woo aajo soxla bi nga fas yéene moo war woo ma dinaa la wax ba wax la beneen soxla bu nekkoon ci yow danga kaa fàtte woon lépp pexe yu bon yu nekk ci yow gàllankoor bu nekk ci yow ak lu téye wërsëg bi ak li nga xamante ne moom moo la mun a dimbali dina la ko wax ci ma la ko waxee ma jëfantal yow liggéeyal ci juróom-ñeenti fan yàlla faj aajo bu dee munuma liggéeyal dinaa gis sëriñ bi nga xamante ne moom mooy faj aajo <laughs> ma ne la demal ci sëriñ diw kooku mooy faj sa aajo nga dem foofu sa aajo faju mhm. macha allah ci seet googu waaye ñu bëri dañu koy faral di wax ba tey sërif ni muy gisee bu dee danga am looy nëbb wala ngay bañ loo xamante ne nit xam ko bu ko seetloo. lu ak lu feeñ yëpp lay woone mhm. nit bu am na ñi nga xam te ne dañ may woo bu ma tàmbali di waxtaan ñu naan bul wax baal naa ko sëriñ nga te bugguma man suñu bugguma kam nga si am na ñi nga xamante ne di nga leen wax ci ñoom boo leen nëbb man dinaa la wax boo wax la képp ku lay fekkel moo tuddal bu tuddal la tuuram nit bu lay fekkel wala nit ku lay def jëf yu bon wala lépp lu la ak nit yi nga xamante ne jëflante na nga nit nit mu yoral la boor wala nit mu jiital a ci bërëb nit ki nga xamante ne moom nga bugganteel mhm. dama la tudd bu tuddal la tuuram loolu noonu xeet ngati yàlla day muuri lu nekk suma diggante ak yow loolu bu muuree ba charaw xam dina taxaw lépp lu mu bëgg xam ci yow dama koy xam. Mhm. macha yi nga xamante ne saa suñu rek dafa leeral waaye lépp rek doon aussi doomu aadama bi di gis ci liggéeyam bu ñu bàyyee point boobu damay taxaw ak yow tuuti ci loo xamante ne ni nga koy liggéeyee jamono ji résultat yi ci doomu aadama yi di am dafa bëri loolu bi wàllum nopp nopp Cherif léegi dem na sax ba am ay sëriñ yoo xamante dañuy ñëw fii. nga leen di jox xam-xam bi ñuy dem di ko liggéey ay nit ci ñetti fan nga koy defal nit. xate lu noob dama ci soxlaay nit yu fas yéene nekk bu dee fekk nekkin bu baax nga si noob bu ñu la ko noobalee bu ma la noobalee si borom kër. Hmm. bu ma defee noob bi diggante ci kër ak jabar xale kenn kii bu njëkkee génn àddina. Hmm. keneen kii du nekkaat ak keneen. doo mun a nekk ak benn doomu aadama nit ki buñ la noobale seen diggante mhm. nit doomu doo mun a tàggul ak moom dootul mun a woon ginnaaw soo amee dina la wax mhm. lépp lu ñu bëgg dina la ko defaral mhm. nit ki yàlla dina la koy yombalal day nekk dara si yow nga taxaw ci kawam ah, bu nekkee loolu mi koy jëfalal nit noonu damay soxla nit ki nga ku déggu nit nga xam te du warkat man duma laaj te nit dërëm dama boo gis nga doog a fay mhm. warkat noonu nekkul man ngay war fekkee ki ngay siyee la mhm. doo ko war doo lekk alalam nga war ko mhm. wala ki nga nekkal kii doo lekk alalam nga war ko ngati nit ki dootul nekk ak sagoom loo ko wax loolu lay def dootul def loo tinul dootul dugal fi nga xam te ne yow yëgoo ko loolu noonu am ay nit boo leen dañuy jël alal kooku noonu lekk alalam ba mu jeex ñu bàyyi ko. moo loolu boo ko defee di nga xeex ak man. Mhm. su wala noppale nit doo ko ba mu jeex nga bàyyi ko déedéet da ngay ànd ak moom ci ngor noonu. Mhm. waaye dina la jox cër bu mu joxul kenn ci àddina bi. dina la jox cër bu mu mot fekk. Mhm. cër bi nga xam te mm. am ci ñaankat ñi naan mënumaa nopp nit ko weex ñi naan mënumaa nopp nit koo xamante ni du jullit waaye Serif na nga ko indil tur ki nga xamante ne moom nga bëgg a nopp a nga am li nga bëgg nit ki bu dee mu ngi koy tiim mm. muy dox ci ko mm. kooku lu mu munta nekk ci àddina dama koy jàpp la ilaha illallah su ma koolee mm-hmm. rawaxaan bi dina ma wax mm-hmm. kii soxlam fii lay jeexee kii nekk nga ci yoon la mm-hmm. lay wax yoon bi ngay jaar yoon boobu moom lay jaar ma téye du man maa koy def dañu may wax jaaral yoon bii nii la. defetal hmm. ko defee tan yoon bii lii li nga lii nga ci am. Hmm. suma ma yoon bo damay jàpp. Hmm. su ma la jàppee doo dara muntu ko dindi ci àddina. Mm-hmm. macha allah ci kàddu yooyu waaye dinaa taxaw tuuti rek ci garab gi nga xamante ne saa su ne yaa ngi koy jox askan bi waaye mu doon njëriñ ci ñi nga xamante ne rek noo nekk ci biir néegu sëy yi garabu kàttan sërif da ngay tàqaleeg góor ak néew kàttan giiru dundam dootu ko jàmmatati fenn fenn fenn fenn na nga ko yëg dégg ko rek jëflanteeg moom mu tàqali koog moom. loolu guddi bu njëkk la. Mm. waxuma la juróomi fan. waaw waxuma la ñaari fan. Mm-hmm. guddi bu njëkk. guddi bu njëkk a jëfalante hmm. guddi boobu ngay tàmbali nekk gor la ilaha illallah kadi doon boo boo ngay wuusi sa borom di nga jàmbat lépp si àddina ko des ngóora hmm? dootoo ko jàmbat xay bu nekkul ndema la yónnee dara noonu waaw fi nga nekk lu may jàng bu ma ko jàngee fi ma def ko hmm. ma jël sa tuur ma def ko si bi su ma ko defee si bi ma liggéey lu ma liggéey am naa fi béjjën ma dugal ci sunguf bi mhm. ma def fas ma dugal ko ci gis nga fi ma la woon foofu noonu ci àll bi waaw foofu laa koy suul béjjën bi mu taxaw laa ilaha illallah béjjën bi day taxaw ma suul ko ma des kii bi mu taxaw ci kaw mhm. bo mooy garab ngay wusi sa borom dootoo jàmbat ngóora kadi nekkul ñetti fan nekkul ñetti fan bis bu ma ko def bis boobu lay am mhm. bu ma ko tàmbali mu defal la ko tey. bis boobu ci guddi. boo koy wuy si sa borom dootoo jàmban. guddi boobu ngay tàmbali nekk góor. Mhm. Mhm. donc da nga ma wan nee ma dëkk bi am na ay mag yoo xamante ni am na ñeent fukki at waaye ba tey ñu ngi dem boo am fukki at doo doo tàgguloog sa ngóor ak quatre-vingt ñu teg. waay doo tàgguloog sa ngóor boo keroog ngay dee doo tàgguloog sa ngóor. Mhm. loolu ngóor ci nit nit la. ci nit wér gu yaram loolu noonu seydaane mun na ko def ci nit ngelaw seydaane mun na ko def ci nit dëgg la ngelaw seydaane bu la duggee mun na yàq sa góor a ci soxna bi ngay am mun na ànd ak àndandoor àndandoor bi yàq sa góor mun nga juddkat nga am àndandoor àndandoor bi yow te mu yàq sa góor loolu dañ koy dindi boobu set ko dindee ba keroog ngay wuy si sa borom dootul ñëwaat ci yow garab nga wuyu si sa borom. waaw dootoo jàmbaar. si àddina. allah bokk na ci leneen li nga xamante ni dama ci santaat bu baax a baax a baax ndax sànq bëri na ay ndaw yu ñëw fii nga ne ma ñii ñëpp sama ay turandoo lañu waaye ca nañ ma tuddee xale yi moo jara laajte moo doy waar ndax seen ay yaay demoon nañ ba jàpp ni dootuñu amati doom ci àddina waaye ba ñu ñëwee wax ma soxla si. ma liggéey ak li nga xamante ne loolu lay liggéey dem fa nga xamante ni foofu laa doon wax sànq sama ubbi téegi bépp soxla boo xamante ne bëgg nga tey tey tey tey mu faju fa ngay dem wéetal fa sa boroom ñaan ko liggéey fa soxla si mu am jigéen ci mënta am do soo toogee ma toog am naa fi leket leket bi bu ma bu dee wàllum am doom la mhm. bu ma la koolelee ci leket bi ma jël suuf bi ma sotti ko ci yow yaay dëgg sa nopp nga dëgg liir mu jooy ci suuf ci ci leket bi nga dëgg liir muy jooy ci leket bi boobaa yow si sa bopp yow yaay wax ñaata doom yu góor nga bugg wala ñaata doom jigéen nga bugg mm-hmm. li nga bugg li loolu laa lay defal nga am ko bu ñu tàmbali liggéey bi bu defe juróom ñeenti fan da dem hôpital nga kool bu ñu nee la yaa ngi ci diggante ba mu weer nga delluwaat ñu ne ngi ci diggante nga ñëw nga kaaj kaalis bi nga jox ma kaaj bi boo demee boo am sa njaboot noonu ba uuf ko. Hmm. nga ñëw nga mottali liggéey bi. Hmm. xam nga liggéey dafa am yoon. Hmm. ñi ñii dañoo sonna lépp loo gis ci àdduna noon dina am ñu koy yàq dina am ñu saay saay ñu ciy dugg nit noonu sa tool doo bugg ku koy yàq. ay doomu séeréer ci lii lañ judd. ci lañu màgg amuñ beneen liggéey beneen mecc su dul lii hmm. ci àll sa lañ nekk béy jàng alquran suñu sunguf liggéey lii nekkul lu sedda lii hmm. seddaay mul ko am lii coono bu ci nekk bi boo nekkul muñ kat nekk hmm. nekkoo nit bi nga xam te ne yàlla moo la nekk di la dimbali dëgg-dëgg coono bi doo mun a xaar foofu boo xaaru coono bi noonu doo mun am njëriñ bi ngati àll bu ñu da ngay wéet ci àll yow kese doo gis nit doo gis weta weet ak ay rawaxaan ak ay jinne da nga koy weet mm-hmm. sunguf bii nii nit du ma ko dindil man maa koy dem dindil suma bopp mm-hmm. boo koy dindi coono bi nga ciy daj coono bi dafa metti mm-hmm. ndaxte dafa am lu muy laaj lu ci nekk da nga koy def boo ni ko koy inde ko ba mu woow ba debbu ko loolu yëpp coono boobu yëpp dafa am lu muy laaj fanaanu guddi wirda bi fanaanu guddi di defar sunguf fanaanu guddi di di di di fas ay nit mhm. loolu yëpp noonu boo nekkul nit kuy muñ bu dee yow sa bakkan nga doo ko mun a xaar loolu noonu boo ko xaarul doo am xam-xam dafa nuñ koy amee gor dëgg-dëgg ku muñ dëgg-dëgg mu mhm. mun am xam-xam nga dafa laaj muñ waral noonu <clears throat> boo gisee ay nit di ko yàq mhm. yow nga tàcc ci loolu yëpp da nga war a génn nga defar ko kenn bëggul ku yàq toolam hmm. man boo gisee ma nangu ngeen di ñëw fii télé bi hmm. may wax ak yéen ngati nit yi ñu ngi ñëw fii sumay taalibe hmm. di ma naan am na ñuy génn di caay-caay nit ñi di lekk seen alal boo gisee man duma laaj kenn dërëm da ngay téye sa alal ma liggéey yàlla bu nga gis ci juróom ñeenti fan kat yi laa la liggéey mu fas macha allah macha allah ci euh, foofu waaye li gën a jaaxal askan bi ndax it say taalibe am na say sët yoo xamante ni sax dañ naan góor gi dafa mel ni ku bëggul alalu àdduna ndax bokk na ci li nga gën a bëgg mooy nit koo xamante ne dafa dem a dem a dem ba amatul yaakaar ci lu tom nit koo xamante ne fépp fuy ñaankat di ne dem na fa danga naan kooku laa gën a soxla ko borom alal bi lu tax loolu. léegi ma ñëwal la fi nga wax. Hmm. wax nañu mel naa ni ku bëggul alalu àdduna waaye dëkk bi. Hmm. sama kër bi loo fi fekk ay étage ka fi fekk. Hmm. étage yu nekk Ndakaaru mu nekk sama kër gi. Hmm. oto yu nekk Ndakaaru moo nekk suma kër gi. Hmm. lépp lii nit di la ci àddina yàlla dimbali na ma ko am naa ko fii. Hmm. te suma jugee fii nii musuma jël suma sacoche dem naan damay dem liggéey wala dem fenn fii ñëpp ki may fekk fii nga may fekk. man sëriñ laa du dem fenn di fekk ci benn taalibe képp ki may fekk fii nga may fekk ci suma dëkk bii nii. suma kër papa fii te lépp fekk na ma fii. lool loolu loolu nit da doylu. Mhm. boo nekkee liggéeykat da ngay doylu da ngay yar ci sa bakkan ci doylu da ngay yar sa bakkan ci lu metti da ngay yar ci sa bakkan ci weet da ngay yar sa bakkan ci xiif da ngay yar sa bakkan ci nga xam ne nga dëddal ko addina bu dee da ngaa wax da weet ak sa borom nga fa la nit ñi boo gisee noon ma ne la nit bu dem bu découragé la bu ki nga xam te dem na boo amatul yaakaar ci boppam ci addina mhm. ngati boo nekkee sëriñ da ut fu dara nekkul nga def fa dara. dëgg la dëgg la da ngay ut ki nga xamante ne kii. Hmm. nit ñi amuñ ci woon yaakaar. kii nii munul fajal boppam dara coow la nga jël ko champa ko mu nekk kilifa di fajal ay nit ay soxla hmm. di yëkkati alal di ko indi si yow ci yow ñëpp xam kii lu nekk ci moom li yow yaa def ci moom hmm. loolu mooy cere bi nga xam ne sëriñ moom moo ko moom dëgg la loolu nit nit loolu moo nekk tuur bu gën a gaaw bu dee da ngaa tuur da ngaa nit ñi jëblu si yow. Hmm. kay moo nekk sëriñ kay mooy wutal boppam tuur. dëgg la de ko munul ëpp wutal boppam tuur kooku munul a taal nga am tuur. dëgg la. wutal sa bopp tuur noonu mooy nga taal ay nit fu ñu dem ñu xam ne ñii lu nekk si ñoom li hmm. yooyu yaa ko def si ñoom. wallaay loolu moo nekk sëriñ. Hmm. macha allah ba tey mbokk yi ci jotaay bi ak kaddu njëriñ ñi nga xamante ne rek ñu ngi koy waxtaanee ak moom Cherif Abdoul saw yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg di jokkoo mook moom saa su ne rek numéro téléphone baa ngi noonu ci suufu écran bi waaye ci leneen li nga xamante ne dinaa ci taxaw tuuti ndax bëri na tey ay gan yi nga xamante ne fekk naa leen fii ci dëkk bi ñu ci bëri ay bitim réew lañu jóge ñëw ci dëkk bi waaye koo ci waxal rek tanaan la sama ñibbi si ginnaaw yàlla shérif la wàllum kayit ay nga ci loolu dégg naa. ci wàllum kayit gis nga fi nga ñëw noonu ci àll bi fi ma xale yi fuñ la woon mhm. soxla bi nga xam te ne jafe na ñëpp waxuma la man de soxla bi ne jafe na ñëpp mhm. soxla bi wër nga ko ci ay sëriñ wër nga ko fépp mu jafee la mhm. soxla boobu foofu laa ko yóbbu fanaan ne kul dama fa yóbbu soxla ngati man fa fanaan bu ma fa demee fajar bi may ñibbisi ci ndam lay ñibba mais mais mais Chérif nga baal dëkk boobu ni mu mel plus de trente wala xaw ma sax ñaata kilomètre wala ñaata mètre yoo xamante ne dëkk bi amul kër ma fa lenn loo xamante ne pour nga yegg fa di nga xamante ak tuuti coono xanaa yàllaa ñu dimbali sax ñu ñu yor suñu oto waaye na ngay def ba dem foofu noonu te amul dara. gis nga yoon bi baaxul foofu noonu nga kar du fa ñëw nag du fa ñëw fas du fa ñëw nit du fa ñëw. nga foofu ay rawaxaan moo fa nekk ak ay jinne loolu ba ci suma maam la ba ci suma papa. loolu dañ ko doon foofu noonu boo gis nga lu ko wër yëpp da nga fekk ma rey foofu ay béy. Mhm. boo fa reyee béy nga bàyyi ko fa du fanaanaan boo ñëwee da ngay fekk ñu lekk ko te bukki du ko lekk dara lekk ko rawaxaan yu fa nekk ñoom ñoo koy lekk naan deret noonu nit du fa du fa man. kenn ñëw fa ñëw fa ñëw guddi gis nga bëccëg lañ leen fa yóbbu. Mhm. kenn du fa ñëw guddi boo fa ñëwee guddi. da tax ñun ba ñuy dem dafa am fu ñu yemloo ñu yem fa. Mhm. sët bi moo avancé ak mhm. taalibe bi. Ah. ñoom la jox ne jëlal leen ñu image. foofu soxla bi nga xam te ne tex na ñëpp. soxla xam te ne ci dama ko bugg a faj léegi léegi léegi léegi léegi léegi foofu laa ko yóbbu mu faju du fanaan da ngay ñëw léegi nga wax soxla bi ñu nangul la ko. nga jugee fa bu soxla bi am résultat borom a woo la naan li ma doon ñaanal fii am na. la ilaha illallah. foofu noonu yàlla dimbali nañu lu ñu fa ñaan ci mhm. yàlla yàlla dinañ ko defal mhm. loolu noonu noonu mu nekk choc la mhm. bu nga xam te ne dafa jafe waaw ñu dem ñaan ko ngati fu ñu toog fii ci suñ dëkk bi soxla yi ñu ngi ko fii faj waaye am na ay soxla yi nga xam te ne day soxla ju dem ba foofu wallaay la ngati foofu lay fajo soxla yu jafe la ci àll bi nga ko mën a faj ak rawaxaan yi loolu bu demee ba yi la foog la boobu du fanaan. du fanaan foofu soog la du fa fanaan. macha allah soog la boo fa yóbbu mu fanaan. soog la bi xamal ne dootul faju ci boo yegg see boo yegg see ci saa si ñoom dinañ la wax li nga fi indi dina faju fii wala li nga fi indi mënu fi faju mhm. dinañ la ko wax te di ko xam. boo leen ko waxee bu dee dinañ ko faj te dinañ ko fajal nga dem si la. macha allah macha allah xam naa loolu <coughs> leer na loolu ndax ñu nit ñi bañ fa demee tàllal nañ suñuy loxo ñaan suñuy soxla yàlla faj ko fa ndax it dëkk la boo xamante ni dëkku xéewal la waaye dëkku yërmande la ci xam-xam bi nga xamante ne rek ba tey yàlla may na ko ko Chérif euh, laataa may dugg ak yow nag ci wax yi nga xamante ne waxoon nga ma ko dëgg dëgg dëgg sénégalais yëpp teg ci seen bët Sa ndax dana la fekk ca stade ba ma ne la waaw falaa koy seetaanee nga ne ma bu arbitre bi di waaju sifle génnal nga woo ma ma wax la turu kii daan bi ma génnee woo la nga wax ma turu kii daan ñu dem mu demee noonu. boobu boo gisee ma wax la loolu xam naa waxtu boobu guddi la waxtu bi dina ma fekk foofu noonu. bu ma foofu bu ma nekkee ci suma béréb boobu. Mm-hmm. lu ma bugg xam ci àddina dama koy xam. li ma bëgg xam ci mm. àddina dañu mm. ma gën a xam nit bu ma fa tudd dinañ ma xamal xay bis bu muy dee dinañ ma xamal lépp lu nekk ci nit ki lu koy dal bu dee dina am alal dinaa xam bu dee du am alal dama lay naan demal nga noppalu mm-hmm. di nga daw ba sa àdduna ba àdduna bu keroog mu ngay génn àddina waaye doo am bu da ngay am alal foofu dama fay toog léegi-léegi nga am alal mm-hmm. foofu laa toog yàlla woon ma kuy daal ma woo woo ma ma nee la diw mooy daan diw te noonu kaddu yooyu du deñ yàgg naa di la wax kaddu yooyu du deñ te mm. dinaa la wax kadi mm-hmm. lu dul deñ la waxaat lu dul deñ balaa ngay dem bu soobee yàlla ñu hmm? mm-hmm. dëgg mal beneen làmb mu bëri coow loolu ci bës boobu nga xamante ni boobu nga waxee ni Eumeu Sène mooy daan mu demee noonu bala Gaye tafaatin Tine ju bari coow sëriñ bi maa ngi dégg nga naan am na ñoo xamante ne ñu ngi waxtaan ak samay taalibe ci ñaari mbër yooyu pour kenn ci ñëw fii ma ñaanal ko waaye làmb jooju lan nga ñu si nar bi gis naa lépp lu ci nekk li fu ñu am yaakaar noonu nit ñi yëpp ñu ngi coow foofu noonu yaa ëpp doole. moo gën a liggéey. Mm-hmm. fu ñu koy yaakaar nekku fa. ndam bi buñ demee ba taxaw ci ci bi ku ñu gën a yaakaar moom mooy am ndam bi kabaari dina jóge foofu delluwaat ci keneen ki. Mm-hmm. ndam bi du fuñ ko foog dina tas yaakaar ñu bëri. lamb bi mm-hmm. dina tas yaakaar ñu bëri seen yaakaar dina ci tas. Mm-hmm. ku ci gën a suufe ki. waaw moom mooy jël ndam bi. ku ci gën a suufe ki. moom mooy gën moom bi. ku gën a bëri coow ki. déedéet mënul jël ndam bi. mënul jël ndam bi loolu da day mel ni xaw naa leer tuuti si oh. suñu ay nopp waaye wax nga ñu ko nee ñu jafe-jafe. bu ñu ci jugul wala ñu teel kaa artu mën naa am ci gouvernement bii nga xamante ni moom moo falu bu yàggul waaye nee nawet gii lépp luy xew ci gouvernement bi ci nawetu ren bii lay am Serif wax jooju. Ah, nawet bi nawet bi ndox dina bari ay yàqu-yàqu dina ci bari. Mm-hmm. foog nit ñi jóg ci def ci ay ñaan. Mm-hmm. ngati dafa am ay gàllaaj ñu ngi ko suul gàllaaj yooyu seen sulleegu musiba la. la ilaha illallah. gis nga ndox bi ngay gis ni ndox buy taax hmm. kale yi di dox ci ndox bi nit ñi di ko laal xay bu nekkee oto nga def dox ci ndox bi oto boobu noonu mun na nekk si sabab bu génn àddina gàllaaj yu suul yu bon yu ñu doon suul yi moom mooy sulleeku ndox ndox bi mu taas hmm. nga laal ko yàqule yàquwaale nga moo waral dañoo war a aar nit hmm. aar réew mi def ci ay ñaan gàllaaj yu bon yooyu noonu ñu bu ñu nga xamante ne mun a def kenn lu bon. ndaxte mhm. bu dul loolu dina indi ay gàllankoor te nawet bi ren dina bëri ndox ndox bi dina bëri lool lool lool lool te ay yàqu-yàqu dina ci am. Mhm. ñaan yàlla noonu yàlla na yàlla sori lépp. amiin yàlla fankal ñu lépp. amiin fankal ñu ay musiba aar ñu. Mhm. aar ñëpp. amiin gouvernement bi. na mu gaaw ci jël. ay motuwaay. Mm-hmm. yàlla def ci sutura. yàlla def ci sutura macha allah yal na yàlla def sutura ci li nga xamante ni moo di réew mi njiit gi nga xamante ne moom lañu suñu borom dénk ñu ñuy jiite lépp rek doon kàddu njëriñ ak kàddu yóbbante ci askan wi nga xamante ne saa su rek ñoo ñuy bàyyi xel waaye Chérif kontaan nañ bég nañ ci am ak yow jotaay mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.